si Rufisque Nord moi nan la ñuy def di nas pour mettre en place des projets de développement ba askan bi gis ci bopam. loolu pour moi, am foog am alal bo amul alal munoo mais bo amul alal munoo réaliser projet donc c'est une mission première moi nan la ñuy def ba am ay recette d'investissement li tax ma tudde recette d'investissement moy li tënk si walu khalis si maire si Sénégal dañ fa gisul recette d'investissement recette fonctionnement rek mo fam donc recette d'investissement pour nga def ko faut nga def ben sacrifice premier sacrifice bi moy lan na ngay prélever si recette fonctionnement def mouvement financier pour réaliser des projets d'investissement loolu ñu ngi koy def ni ngi def ay mouvement yu doy waar mais loolu dafa doyul parce que boo xoolee problème bii risque Nord am problème majeur et prioritaire mooy mu am réseau d'assainissement réseau boo xam ne ni dañ si branché fosse septique réseau boo xam ne ni bu ñu raxasee sangu fu leen koy dugal réseau boo xam ne ni nappe phréatique bi dafay jaar lolu moy réseau d' et lolu pour mo am foog ñu am xaliss bu bari pour def réalisation bob ARCA ñaari candidature la am benn candidature pour la commune de Rufisque Nord benn candidature pour la ville. kon amul xëccoo. amul xëccoo man la ah Abdou Ndiaye donc lolu la si xam nous nous sommes des militants disciplinés lepp lu ñuy décider du Abdou Ndiaye du Mané d'Oumagay. C'est le comité de réflexion et d'orientation de la formation politique de ARC moom mooy décider et ñu entériné ñoom nag ñoo décidé choisir ma choisir Abdoulaye. Ndiaye donc gisuma si benn problème. yéen a ngi ci Benno Bokk Yaakaar. waaw ñun ñu ngi si Benno Bokk Yaakaar